wa bokk internet yi comme ni ko tamé defee saa su tay ñi ak le grand coach mom les coach équipe passé mbooloo nekk suñu chroniqueur itam journée bu bu bu jeex rek ñu def ak mom ben courant bu am solo coach ñu lay nuyu di ziar eh, ma ngi di fay ma ngi nuyu gédja wa info namon na gaay gédja wa info namon nañ ma di gërëm suma xarit comme li la wax rek ak suma rak Cheikh lay Diop ma ngi gërëm Jean Claude mendi depuis les muros xam nga ci Paris xam nga di gërëm ñom Tami ñom ñom ñom emile ñom grand Raoul ñoom papis ñëpp dëkk géejawaay ah di gërëm Pape bu laa Bokeer xam nga ñoom ñëpp maa leen sant di gërëm suma rakk Malick Malick depuis Italie nga xam lu ma soxla ci samay soxla lay taxaw guddi samay soxla taxaw bëccëg maa ngi koy gërëm di ko sant waaw ah, am solo bu neex itam diggante nga ak ki nga xamante ne aussi mooy ambulance bu Thiès lan nga ci mën a wax xoolee lamb da nga koy xam dokkee wax ne woon naa leen journal lamb tey bi gën tey ci suba à wulli moo doon favori parce que moo ëpp jàppale ëpp ñaan par rapport ak ambulance bi nga xam ne waa Thiès dañ ko waroon jàppale maire Thiès jàppale ko mu mën a indi nit mu mën a indi public bu rëy fii ci stade bi bële rëy mais combat bu garaaw lañ bëri tey combat bu neex lañ bëri tey mais wulli moo ko gën a man di bëri tuuti gën koo am sañ-sañ gën koo ñeme responsabilité parce que responsabilité bi ñu wulli ñeme moo tax gisoo ni mu ko daanee bëri nañ combat bu sa yàgg xeex nañ tuuti mu def demi flexion doolay ambulance ñëw ci kolom mu peel ko xam nga peel yooyu masoon liggéeyee peel da koo peel waaw. maanaam demi flexion la def daal sukk daw tuur ko. xam nga bu defee demi flexion ambulance dooleem day ñëw ci kaw wulli wulli gis nga maçon yi li ñuy liggéeyee peel da koo peel xam nga li maçon yi liggéey di ko peel noonu la ko def da koo peel dafa def demi flexion doolay ambulance ñëw ci kawam mu def ko mu peel ko mu jàll ci gannaaw waaye kon sama ambulance def na lu mu mën loolu day wan mel ne Dakar jigu ko que boo xoolee caat booy bambara ko fi mbot mu fii ci Ibamar ñu jox ko armée mu yaakaar ne moo daan armée ñu xoolaat télé yi xool caméra yi visé na ko joxaat armée victoire bi donc nag tey mu ñëwaat ñu peel ko bii peel bu rëy ah na waar combat bi nag ambulance si boobu war naa xoolaat boppam. mu doon combat amateur stade bi ni mu mel tey mun naa ni na ñëpp. non asan Ndiaye heure bu organisé day neex ndax Assane ay combat jànq lay wut combat yi neex lay wut te aussi di ko remercier ci loolu xale yi muy bëreloo. Koña ak Ama bu Malika bi mu ci def dugalaat yegsin ak ak ak kii bu ma bu bu bu bu Rufisque bu bari ñi combat bu neex la mais combat li ma wax rek mbër yi bëri war nañoo jàngi bëre parce que bëre am na fiile am na yokk am na xàttar bi am na caxabal mais ponk li jox di daje di buuxante loolu taxu ñu naan combat combat daa war a saf sàpp nekk combat jànq. am na solo kër sa kàddu gu mujj looy tàggatoo. comme li ma comme d'habitude rek ñoo ngi gërëm sumay frère sumay rak sumay mag su may rakk di gërëm Malick depuis Italie Malick maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant. bu ma ko waxut dama du ma naa du ma du doon dëgg di gërëm suma suma suma xar Jean Claude Mendy depuis Paris depuis les Mureaux di gërëm maman grand Raoul surtout grand Raoul heure bu ñëwee Sénégal ay soxlaam daanaka presque maa koy dox maa ngi koy sant baax di ko gërëm di gërëm aussi Youssou Gueye ak Cheikh Abdoulaye Mbacke Gueye jërëjëf waa Guédiawaye info namoon naa leen lool. waaw kàddu yi am na solo comme comme d'habitude rek mu doon lëkkat su Mame Less defal ñu chronique bu am solo ci combat bi nga xam bu rëy bi fi amoon diggante Wouly 2 ak ki nga xam te ne mooy ambulance bu Thiès Wouly daal ci am jël bu rëy ñu bëree bërëm met di sant di leen gërëm rek très cher di leen jox rendez-vous prochainement di sant aussi suma technicien l'incontournable Bekay Koundoul